donc tey dañ fi ñëw euh, parce que dañu convoqué session extraordinaire parce que ni ngeen ko xamee session ordinaire bi dafay door première semaine bu euh, octobre jeex ci deuxième quinzaine bu juin donc depuis le 30 juin député yëpp dañoo nekk congé nokki vacances mais euh, dañ ñu convoqué pour projet de loi bu bees bu fi ñëw mu ŋànk code électoral bi ndax ñëpp xam nañu ne le président de la république dafay defoon li ñuy wooyee indi woon dialogue national ci dialogue national bi mu am commission politique boo xam ne dafay liggéey ci les réformes institutionnelles di liggéey ci mode élection yi di liggéey ci lu bëri donc nag ñu woo ñu pour tijji rek session bi président Moustapha Niasse on nañu tëj nañ session bi li des mooy comme ni mu ko waxee léegi ñu dem rapidement la conférence de président ñu réunir daal di xool. ban bés la ñuy jàpp pour commission technique bi nga xam ngeen ne commission technique fa la ñuy càmbaree code euh, projet de loi bi nga xam ne mooy code électoral bi donc euh, muy commission boo xam ne muy kujje gi mu ñu ànd ak euh, nguur gi mu ñu tëdd ak jaaxaanaay ñun ñëpp mën nañoo mën a am suñu temps xool document bi interroger nga xam ne mooy ministre de l'intérieur bu loolu weesoo tamit tey dinañ déterminer jour bi nga xam ne tey la plénière bi.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 sur www.sénégal7.com. Sénégal le roi de l'information en temps réel.